précédé mooy ñu waxtaan parce que Adama am na foo xam ne foog ñu nangu ne tout ce problème qu'on vit c'est du fait du règlement intérieur. oui waaw ça c'est une. mais c'est le règlement intérieur du moom la nit ñi doon defee seen DPG. avec le même règlement intérieur. n'est-ce pas non xam nga. nee nañ la dëgg ci diggante bi yaay une changement suppression ah même bu ko defee ak ak euh, règlement yéen bu nous avez reproché de se battre à l'Assemblée xam nga. bu ah. nous avez reproché. d'être sorti par, euh, par les GIG. Oui. vous nous avez reproché de boycotter l'hémicycle. oui xam nga loolu yëpp lan la règlement intérieur moo koy indi. bien sûr. cela que député bi def na li mu war a def yëpp ci xeex mais nag attention xam c'est la démocratie. Mhm. boo xeexee ba xeex y majorité. oui da ngay da ngay da ngay plié bien gars yi gën a la salle bi. Mhm. c'est que bi ñu koy kaas di ko yuuxu di ko ci xeex foofu la ñu waroon na. jël réglementaire mettre ko à jour. kon maanaam mu am suivi. mu am suivi ñun nag looloo ñu nag léegi. Sénégal looloo ñu am suivi dara wax na ñun bi ñuy xeexee bi ñu génnee bi ñu defee lépp acte bi rek mooy jaar par la procédure normale mooy dem porte plainte. sur beaucoup de choses nag. pour vous pour vous les députés vraiment mais néanmoins on sait maintenant le problème il faut ñu éviter cette mooy lan parce que ñun nag ci biir réglementaire bi on en tant que non inscrit su ma neexee ñoo ci yem. parce que les non inscrits amuñu benn information parce que on siège pas. ci bureau bi ci bureau bi. je vous assure que ñun bi ñuy bi ñu ne reporté nañ séance bi ñoo journaliste ñoo ci yem. Mhm. parce que on n'a pas siégé. nga xamuñu mobile bi xamuñu lu tax. Mhm. moo tax réforme bi war a am beneen bi le temps de parole l'organisation des débats et tout ça. Mmh. maintenant fi coow bi nekk rek mooy li doyen wax. ñun ñëpp xam ne règlement intérieur est-ce que maintenant le pouvoir le pouvoir législatif lay wax ah. Mhm. ah président lan mooy priorité bi est-ce que seen seen seen seen. Euh, déclaration de politique bi. waaw non non bi bi bi dindi loolu mooy priorité wala règlement intérieur bi. Mhm. xam nga foofu rek na coow bi nekk man gëm naa ne xëy na bu ñu jiitalee le pouvoir là de dissolution bu ñu ko jiitalee xëy na mu na mun na indi coow mais est-ce que ci même même même convocation bi on wala est-ce que bu ñu jiitalee règlement intérieur bi régler problème bi Sonko Sonko ñëwaat est-ce que ça règle problème mais pour te dire que ne comme il y a des médiateurs. Mm-hmm. xam nga ku la yónni. médiation bi laa xamul tamit pour lan